alors ñu ngi am mbégte dalal Diematy Fall porte-parole adjointe bu parti socialist bokk ci bureau politique bi nekk itam secretaire national à la communication Diematy ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey merci beaucoup Fatou. Mm. maa ngi lay nuyu yow tamit di nuyu seen auditeurs yëpp. Mm. ak seen waa rajo bi yëpp. jërëjëf alors bureau politique bu parti socialiste euh, daje na samdi réunion boo xam ni xëy na waxtaanee ngeen ci yu bëri mais liñ ci gënoon a xaar bokk na ci peut-être ngeen natt élection locale yi ngeen génn wax ci législative yi ngeen dëkkmal ak yeneen i ponk lan la ñu mën a jàpp gannaaw seen ndajem samedi bi. Euh, jërëjëf Fatou. Euh, li ñu def euh, suñu réunion ba euh, bureau politique bi. Mm. gëjoon na ñu ñëpp dañu namante woon. Mm. dañu soxla woon waxante ci suñu biir. Mm. waxante ay dëgg. delloo ci xel yi ñi nga xam ne peut-être seen xel dafa xawoon dem. wala dafa xaw a jaxasoo. ah am nañu seen xel demoon. jaxasoo. jaxasoo jaxasoo. tegaat nu ñu koy waxatee. buum bi si mboy boy bi. Mm. voilà léegi socialiste yi dañu namonte dañu namonte woon dañu namoon waxante mm. ak seen camarade socialiste. Mm. léegi bi ñu euh, tàmbalee euh, réunion bi. Mm-hmm. Euh, dañu def hommage ci ñi nga xam ne jóge nañ fi. sañu camarades yi fi jóge wala. Mm-hmm. sañu mbokk camarades yi fi jóge. Mm-hmm. ñu ñu rendre également hommage sañu lion yi sañu gaynde yi nga xam ne dañuy def lu rëy. Euh, ñu déglu aussi euh, suñu secrétaire général daf benn introduction liminaire mhm. campagne bi passé mhm. ak perspective yi mhm. ñu déglu également sañu euh, ñu déglu également suñu camarade maam bi maam Bounama Sall mi nga xam ne moo ñu représenté ci secrétariat exécutif bu Benno Bokk Yaakaar nga xam ne décision bu ñu munti jël foofu moom da ciy bokk te moo ñuy ñëw aussi balaa muy dem dafay dafay déggoo ak ñun waxtaan ak ñun. Mm. bu ñëwee tamit mu mu mu mu. rendre leen compte mm. euh, ñu déglu tamit communication ñetti camarade mm. benn camarade bi mooy Abdou Karim Mbengue. mooy suñu secrétaire national si xarale yu bees yi. mooy les TIC. Euh, déglu également suñu camarade euh, Boubacar Baldé. ñu koy woowee Sarkozy. moom moo defoon conférence de presse bi. Mm-hmm. ci fan yi passé mm-hmm. déglu itam euh, camarade Alpha Bayla Gueye nga xam ne moom mooy coordonnateur euh, cadre socialiste yi nekk vision mm-hmm. déglu nañu sax euh, président conseil des sages mm-hmm. muy suñu papa Guiram Ndoye mm-hmm. ma nga xam ne moom mooy papa Alioune Ndoye ministre bi voilà déglu nañ déglu nañ tamit sañu camarade El Hadj Mansour tonton Hadj moom wax na wax yu rafet comme d'habitude suñu camarade Boubacar Balde di Sarkozy nag moom. Mm -hmm. waas nañ ko fa waas yu metti lu tax ngeen waas ko. waaw parce que dañ ko ne. Mhm. E, mbir bu xewee. Mhm. boo xalaatee benn yëf wala kontaanuloo si benn yëf ci biir kër gi nga koy waxtaanee le linge sale se lave en famille. Mhm. ah ci instance yi. lañ koy waxtaanee ci instance yi lañ koy réglé mais du ci mbedd bi. mais est-ce que est-ce que famille boobu daje nañ. ndax yéen seen bureau politique bi gëj naa toog. est déggoon nañ fi gars yi di wax ne faw ngeen daje parti bi. mu ngi dee du ci marché bi du ci place publique lañ koy régler. Hmm. léegi bureau politique bi képp ku nekk parti socialiste. jàng nga naka la parti socialiste di fonctionner. Hmm. jàng nga ko ci école du parti bi. jàng nga ko ci sa expérience. Hmm. jàng nga ko ci. sa xalaatu si sa xalaatu mag wala sa mm. action mag yi la fa jiitu mm. nga xam ne ñu ngi foofu toujours di encadrer jeunes yi mm. te tamit boo xamulee bu dee nekk nga parti socialiste lu yàgg te ba léegi xamaguloo kon xam ma kañ ngay xam te boo xamulee aussi mën nga dem nga laajte d'accord donc en dehors bureau politique mm. en dehors secrétariat exécutif national euh, parti socialiste dafa bëri ay instance ay ay euh, moyens yi nga xam ne mun nga wax mun nga fa wax sa soxla. Hmm. bu fekkee ne bureau politique amul bu fekkee ne secrétariat exécutif national. dajewul euh, dajewul. Hmm. waaw loolu képp ku nekk lan la leen tontu ci bi nga xam ne ñoom euh, lancé woon nañ ko. ñu jàppoon ne fronde la. loolu ku nekk parti socialiste xam nga ko. Hmm. léegi ci ci race bi mu wax. IRAS paa yëpp dañ naan la may race. paa yi nekkoon foofu ñu ne la may race. moom moom bi mu waxee ba pare. ñëpp tontu nañ ko. Hmm. ñëpp wax nañ ko liñ ci xalaat. d'accord ne ko premièrement yow sax yow paa yi ñoo ko wax de ay paa yu bare wala ay ay euh, euh, nu mu tudd. ay responsable non non hmm. non ay responsable. d'accord ay responsable coordination. Hmm. section ne ko yow premièrement balaa ngay wax sax yow ana sa résultat ana sa bilan ana sa ana sa base. que ñoom mënuñu sax accepté koo xam ne amuloo base nga nekk fi di wax ci mbedd bi kon Balde amul base. ah paa yi ñoo ko kii euh, sa kii euh, responsable yi ñoo ko wax mm. waaw ñoo ko wax de ñoo ko wax d'accord am na sax yeneen yu ñu wax te du ma ko wax fii si rajo bi mm. waaw ay preuve la ñu wax te euh, te ba léegi Sarko sama camarade Sarko tontu aussi mm. bref du ma ko wax fii du ma ko weejee fii doo ñu ci wax tuuti rek ñu xam déedéet loolu c'est c'est c'est confidentiel d'accord ça peut le pour waa PS la non c'est non ça peut le c'est d'accord c'est un peu gênant pour lui je vais dire hein d'accord Euh, ñu ne ko aussi soo amee looy wax ñun ñu ngi fi. Hmm. fii lañ koy réglé du feneen. Hmm. ñu ne si seen bopp ñun Aminata Mbengue mii sax mënuñu def loo loo xam ne bëgguñu ko def. Hmm. ñun fii bu ñu amee lu ñuy wax fii la ñuy ñëw wax ko fii la ñuy euh, wane sañu góom. ñu faj ko fii. du ci mbedd bi. nekk yow danga ñu manque de respect sax. ba pare euh, benn sage ne ko yow dañ la ñaanoon nee la xaaral ba bureau politique bi ñëw. ñu wax ci nga génn si mbedd bi di ko wax. loolu yëpp euh, ñu ñaawlu ko. reproché ngeen ko ko. waaw waaw bien sûr loolu loolu yëpp ñu ñaawlu ko. Mhm. Euh, may ma terminer. Mhm. moom si boppam. moom moom ak Mamadou Diouf Mbodj. ñu ne ñoom courant wu ñu. Mhm. paa dañ leen wax nit yi dañ leen wax. responsable ne leen yéen. yéen courant bi yéen lay njëkk a maas ñu ne ñoom <laughs> dafuñu courant ñu ne ku fii dafoon musa def courant fii ci PS yow la njëkk a maas yow la njëkk a après nga ne ziw noonu lañ ko defee ne nga ne ziw <laughs> ànd ak courant ba dem ànd ak courant ba dem ne ko Euh, euh, moom nee na Mamadou Diouf Mbodj nee na ñoom ku raw ñu mm. motion ñu fa euh, tur boobu sax kenn tudd ko fa mm. kenn tudd fa front d'accord ñu ne ku raw ñu motion ñu mouvement mouvement ñu mm. en dehors du PS ñu ne ñoom si PS lañ nekk dañ doon rek indi seen xalaat ci réflexion bi pour pour pour pour PS gën a naat gën a vert gën a dynamique loolu la ñu wax voilà d'accord voilà kon loolu leer na. loolu moom loolu moom leer na. Mm-hmm. voilà voilà bu weesoo loolu. wax ngeen mm-hmm. ci élection locale yi ngeen génn ba ngeen ko nattee lu ngeen gis. léegi euh, euh, euh, globalement. Mm. bureau politique bi. du woon instance pour daf évaluation scientifique bi mm. mais responsable yëpp ñi nga xam ne participer nañu mm. si euh, élection territoriale yi passé ah ak ñi nga xam ne nekkoon nañ si candidat ñi gagné mm. comme ñi gagnewul ñoom ñëpp wax nañu wax nañu seen seen seen bilan mm-hmm. seen bilan euh, coordination mm-hmm. wala section wala yooyu ok mais euh, évaluation scientifique bi nag loolu dañ koy euh, dénk sañu scientifique yi entre guillemets yi nekk si yi nekk ci parti bi ñoo xam ne seen évaluation mooy gën a mooy gën a xóot daal mooy gën a xóot mais mais quand même wax nañ si ku nekk ku nekk natt nga sa bopp mm. am na ñi nga xam ne sax dañu ñëwoon nii ne secrétaire général bàyyi ñu def ay liste parallèle hmm. bàyyi ñu da ñu demal sañu bopp dañuy gagné. am na ñu ko waxoon am na ñu ko waxoon. dañoo ne mbàpp si suuf xam nga ñooñu waxatuñu. mais loolu PS moo ci ànd ndax moom déposé na caution pour couvrir oui, les. bien sûr que hmm. dafay déposer question. Euh, caution parce que bu ko déposé woon. Hmm. bu ko déposé woon tey jii euh, bu élection yi jeexee dañu naan secrétaire général bi yow yaa tax ba gañewuñu mais da nga leen di bàyyi ñu dem ku ne xam ah, li mu mën. ku nekk xam li mu mën ku nekk natt sa bopp léegi démb. ñoom ñëpp dañu noppi mais am na ñoo xam tam gagné nañu damal nañ sañ bopp gagné nañu voilà mooy Ali Mané par exemple bu may bu may citer benn mm-hmm. exemple mm-hmm. comprendre mm-hmm. mais euh, euh, boo leen boo leen woon soo leen tere woon après ñu ne yow yaa tax gañew ñu mais léegi dem nañu xam nañu lan lan lan la ñuy kii donc loolu yëpp xew na fa mais ku nekk am nga humili humilité même ñi perte am nañu humilité ñi ne ñun dañoo juumoon. voilà jeex na léegi législative yi noonu tamit ngeen nar a defaat. léegi lé euh, da ngay xam ne euh, parti socialiste dafa lëkkaloo ak benn bokk yaakaar librement. Mm. Mm-hmm. maanaam ci coobare boppam. depuis 2012. Mm. ñu ne bi premier tour bi passé ñu ne euh, dafa amoon douze candidats. ñu onze candidats yi ne. yépp si ñun onze ku si génn rek ñun ñëpp dañu lay jàppale ci mhm. loolu la ñu nekk ba léegi musul changé waa mais coalition bu mel noonu nag mhm. musul bu bu bu bu guddee noonu fan noonu waaw bu guddee fan noonu loolu moom nangul nañ ko bennoo ah léegi nag li ngeen def ci local yi ndax loolu ngeen di defaat ci législative pour couvrir seen yeneen gars yi xëy na bëgg a demal seen bopp déedéet hmm. le législative yi di am parallèle moom du am hmm. mais ci loolu rek la ngeen ko féete na boor waaw ah, féete boor exactement léegi nag ñi nga xam ne euh, comment dirais-je Euh, ni ñu defoon euh, ci les ci territorial yi. Hmm. ci biir benn bokk yaakaar la ñuy demee mais dootul am ay parallèle. amul parallèle voilà déedéet. parce hmm. que territorial moom jàngal na ñëpp. d'accord alors mhm. PS euh, ak euh, Benno Bokk Yaakaar wax nga ko ànd bi mi ngi bëgg a yàgg 2012 ba léegi mhm. euh, mais dañu gis ne jamono yi weesu bon mhm. yenn ci seen i maam sax ñuy wax ne PS dañu ko tàmbale ñàkkal fayda parrainage bi am Aminata Mbengue Ndiaye liste bi ñu gis ay responsable bennoo ñu dénk leen collect parrainage yi bokk si local yi tamit investiture yi ñu bari kontaan nañu woon wax nañ fi ne ñi génnee nañ leen fii teg leen fee ñeneen ñi sax investiture yi metti woon de négociation beaucoup de tractations alors est-ce que yéen yéen a ngi yëg ba tey ñu fullaal leen ci biir bennoo waaw ñu ngi koy yëg ba léegi parce que bu mm. buñ ko yëgutoon buñ ko yëgutoon Aminata Mbengue du du sax toog fi mu toog day démissionné kon parce que mm. parti socialiste militant parti socialiste noo ko def loo xam ne bugg ko évidemment élection yi sa a été très complexe mm. y a eu am na ay ñoo xam ne dañoo meroon parce que mooy li nga wax. parce que euh, manque de générosité. Mm. daf ci am loolu moo tax sax ñu bari dañu mel ñu ne. sax wax nañ ne APR dañoo foqale. ah waaw. Mm. waaw mun na am ñoo bëgg a jël en tout cas daal euh, euh, mun na am. Mm. mun na am waaw na am léegi ñi nga xam ne dañu trouver que APR dañ dafa foqale. dafa foqale n'est pas généreux ñoom dañ dem nañu def seen liste. am na ñu gagné am na ñu gagné wul. n'est-ce pas donc problème boobu am na maanaam bu xëccoo bi pare bu xëccoo bi bare mhm. ah il faut nga am un peu de hauteur mhm. xëy na militants yi si seen biir mun nañu xëccoo mhm. mais euh, euh, njiit yi ñoom duñu xëccoo dañuy waxtaan dañuy waxtaan bu ko defee ñu ne ah Aminta bàyyil ma fii Aminta ne ko ok kon jox ma fële noonu la noonu la affaire bi di demee noonu la affaire bi di demee fépp négociation noonu la noonu lay demee waaw da ngay bàyyi lii jël lee mënu leen nekk ci coalition ba pare nga bugg a àkki moo yëpp da ngeen di négocier waaw parce Euh, kenn euh, nuñ koy waxee. mais yëgu leen ne gaañ nañ leen ci élection territoriale yi passé ah mais militants yi wax nañ ko. Hmm. mais aussi li euh, militants yi wax nañ ko mais wax naa la solution bi mooy ñoom nee nañ dañuy demal seen bopp. Hmm. loolu kañ mais am na ñeneen ku mel ni Aïda Sow Diawara par exemple. déedéet déedéet day Sow déedéet Aïda hmm. Sow Diawara waxal waxal na boppam démb. loolu gaañu ko dara. dañ ko ñaan njëkk mu accepté ko. ah loolu tam am na ñu ñaan la njëkk. Kaffrine tamit ñu ngi doon xaar Abdoulaye Wilane nekk maire candidat waaw mu bàyyi dem conseil départemental loolu laa la wax ma ne la danga naan Aminta jox ma fii mhm. Aminta ne la jox euh, kii jox naa la jëlal fële noonu la ami euh, Aïda Sow Diawara moom dafa discipliné militant bu discipliné la mhm. bu ñu ko ñaanee njekk da koy def même à l'intérieur du parti socialiste loolu mhm. dafa mus a am nit dafa war a jàll ñu ñëw nekk ñaan ko njekk nekk ko ah diw bul kii bàyyil sa tour hmm. non bàyyil sa tour hmm. laisse ton tour hmm. nga bàyyi nga bàyyi keneen jàll loolu am na euh, député Rokhaya Diaw waroon na nekk député bu yàgg ci temps Oulimata Diom ñu ne ko Xalif euh, Sall ne ko ba bàyyi euh, may ma kii bi hmm. ñu jox ko keneen ñu jox ko hmm. Oulimata Diom te temps hmm. euh, ci législature bi député la ku nekk ak sa chance nit ki tu ne dois pas être pressé ah lu war jot yomb lu jot yomb et loo war a am di nga ko am léegi wax nañ tamit ci parrainage bi mais loolu ay ay ay rey ay rey lay def am na ay militants yu ko wax dañ si meroon ça c'est vrai loolu dëgg la moom am na mais loolu xam nga ne c'est pas logique c'est pas cohérent yow tamit. Hmm. duñu jël njiitu parti bi di ko def loolu. léegi Aminata Mbengue Ndiaye moom luy taxawaayam ci wutum parrainage bi ma ne hmm. njiitu parti sañu njiitu parti bu ñu ko defee loolu. ñun tam hmm. dañuy gedd loolu duñ ko def. loolu xel loolu xel sax da ko xalaatul parce que Aminata Mbengue Ndiaye aussi defe bu mun di am ñàkkul fu la ñàkkul fay. mais mais liste bi ñu gis moom bokk ci. non liste yéen xaw ma euh, ban liste ngeen di wax mais dama leen. wax yéen nag yaa ma gën a xam liste bi. bay wax ñëpp gis nañ ko ah non non gisuma ko déedéet ma ne loolu amul sens. Hmm. amul sens. d'accord a ah, su ma neexee man tey jii ma indi liste. waaw. su ma neexee ma indi liste jox jox ko ku ma neex. mais liste officielle bi. Mm. maanaam comme bac xam nga bac ba la neexee ñëw. wax sa parent j'ai eu le bac. Mm-hmm. mais liste officielle bi. ba ñuy affiché ba ñuy affiché bokkut. Mm. voilà kon daal Aminata Mbengue Ndiaye. bien sûr elle est dans le jeu. mu ngi ci biir wutum parrainage bi. mais bien sûr ñeel bennoo mais toog si amul loolu amul sens njiitu parti. Mm. njiitu parti président sax buy tànn ministre ministre PS buy renouveler sax gouvernement. dafay ñëw ci njiitu PS la wax ko. wax ko ah, laaj ko laaj ko moom ba pare laaj ko xalaatam ba pare mm. voilà mu jeex d'accord ah alors itam congrès kañ ngeen koy def loolu tamit coow la ci biir PS voilà euh, euh question congrès bi tamit mm. démb militant yi Euh, tontu nañ si kii tontu nañ si euh, Sarkozy moom moo ko fi wax. Mm. keneen waxu ko parce que képp ku jaar parti socialiste jàng nga école du parti. Mm. wax naa ko depuis sànq jàng nga ni parti ni euh, parti socialiste di fonctionner ñëpp a ko xam. Mm. parti socialiste kenn defu fa da ngay topp bi rek kenn dofu fa kenn du mm. xëccoo kenn du njëkkante da ngay bi sinon doo jàll. <laughs> voilà voilà boo génnee rang bi bokkatoo. ah boo génnee rang bi kenn dootoo bokk. ci léegi congrès bi lu tax amagul ba tey militant yi seen bopp ñoo lay mere <laughs> ñoo lay parce que militant bi ku nekk da jël parti socialiste mooy sama yëf. Mm. ñoom ñoo lay mere bëgguñu nga yàq seen yëf. Mm-hmm. Euh, léegi congrès bi balaa nga congrès di am dafa am ay préalable. Mm. congrès il faut nga nga nga nga jaay carte yi. il faut nga renouveler sa instance yi ñu nag après ñoo ñëw soog a def congrès hmm. loolu loolu ba léegi amul am na ñi nga xam ne euh, euh, pare nañu seen euh, seen processus hmm. jaay nañ seen carte renouveler nañu am na ñoo xam ne defuñu ko léegi nooy congrès congrès dafa am ay dafa am yoon hmm. ñu nekk parti socialiste ak Sarkozy mi ko doon wax moom moo la ko gën a xam xëy na dafa doon ut leneen mais moo la ko gën a xam léegi congrès bi kañ lay am xamagu leen même liir bi na ko ah ma ni jàppagu leen bésu congrès bi congrès je viens te dire Fatou congrès pour nga def ko il faut nga jaay sa carte yëpp. te pareegu leen jaay carte yi. ah am na ñoo xam ne jaayuñu seen carte peut-être dañu am ay problème ci seen bi mais pareegu ñu jaay seen carte. Mm. léegi nooy def da ngay def da ngay def congrès sur la base de quoi. d' accord voilà c'est ça loolu moo tax euh, législative yi. bu mm-hmm. weesoo ñu ngi jëm ci présidentielle. Euh, mm-hmm. lu ngeen ci xalaat wala waxagu leen ci. li ma ci xalaat euh, Fatou xëy na ñi ñi ñi intéressé wu si présidentielle bi ñoom ñu ngi koy xalaat. Mm. mais li ma la mën wax pour parti socialiste. ñun tollaguñu foofu dang ñuy may rek. xamaguleen ndax da ngeen di samp candidat am déet ma ne dang ñuy may ñun kenn dañu mës a am candidat ñu ñoo ñu ñoo investi Macky Sall euh, kii. candidat socialiste lañ wax ma ñu ñoo investi Macky Sall xaaral ma wax la ñu ñoo investi Macky Sall mm. euh, ci ci de des congrès du parti socialiste. mais ma ne. mais Macky Sall du socialiste ah, mais du du socialiste. Mm. Euh, mais ñun tam duñu libéral. wala mm. problème ñu mais ñoo bokk coalition. benno voilà yaa ngi nii nekk ci rédaction bi <laughs> ah? am na ñuy muuru. am na ñoo xam ne du ñu muuru. Mm. yow yaa ngi muuru. am na ñoo xam ne du ñu muuru. mais ñëpp ci réew mi lañ bokk. voilà ci réew mi lañu <laughs> bokk. noonu daal nga ko bëgg misaalee. ah d' accord 2024. waaw may ma pareegu ma mais pareegu ah. <laughs> léegi doo ñu may faat. faatu doo may ñu pare sañu. législative yi waaw ngir ah. yàlla. Ah, may ñu xala xam nga législative yi. c' est mm-hmm. dans trois mois. Mm-hmm. ah. waaw 31 juillet. damay dafa jàmm xoolal liste yi nu muy demee. Mm-hmm. ah. Euh, établissement lycée yi ni muy demee beneen problème amati. Mhm. ko coow amati. coow amati commencé waat coow amati. voilà ba ngeen génn ci loolu. voilà ba ñu génn ci loolu waaw d'accord 2024 dina ñëw. ah ba pare pare aussi sañu campagne agricole. Mhm. Ah, yow itam. da ngeen def Dakar yéen rek <laughs> ah. rek ñoo fi ne. waaw jërëjëf Diematy Fall amoon nañu mbégte quand même dalal la ci plateau matinal Rewmi FM fàttali ni yow yaay porte-parole adjointe bu parti socialiste bokk ci bureau politique bi nekk itam secrétaire national à la communication. jërëjëf di itam euh, journaliste bu ñu ràññee macha allah. Euh, merci beaucoup jërëjëf euh, Fatou Thiam. <laughs> Mm. ah. Ça a été un plaisir euh, de partager euh, cette antenne avec vous. C'est partagé, le plaisir est partagé jërëjëf Jéemati Fall